Bon, euh, tout d'abord, nous, nous, nous, rendons grâce à Dieu, hein, parce que effectivement, nous avons euh, constaté cette violence, mais fort heureusement, ici dans la commune de Grand Yoff, nous menons une campagne paisible et chaque coalition est en train de mener sa campagne sans véritablement euh, trop de problèmes. Maintenant, au niveau national, nous avons constaté hein, ces euh, heures qu'on dans certaines localités. C'est une situation que nous déplorons et que nous dénonçons et nous lançons un appel à toute la jeunesse sénégalaise d'être vraiment une jeunesse consciente que ces élections, il ne nous reste Et est important que de, de faire savoir à cette le choix, c'est eux le faire. Et ils peuvent attendre le jour des élections, le 24 février. Parce par rapport à notre démocratie, il n'est pas du tout euh, acceptable qu'on puisse noter des violences parce que une coalition est de mener telle ou activité. Je que chacun a le droit de mener sa campagne dans la paix et la quiétude et que véritablement au soir du 24 février, que les Sénégalais puissent voter dans la paix dans la sérénité. Nous faisons appel aussi à l'État pour que véritablement qu'ils puissent encadrer euh, tout le processus donc, euh, de, la, de la campagne et que nous puissions euh, laisser en paix toute nos populations pour que euh, véritablement qu'on n'ait pas euh, de difficultés hein, durant, cette, durant cette campagne. di ko di di di gërëm suñu borom ci li nga xamante ne moom ñu koy defal fii au niveau de Grand Yoff parce que seetlu nañu ne amuñu benn problème ba ñu commencé campagne bi ak léegi euh, li ñu constaté nag au niveau national dañu koy regretter rek wax acteur politiques yi ñu revenir à la raison xam ne lii élection kese la te réew mi ñun ñoo ko bokk li ñuy ñaan mooy jeunesse bi surtout ñu conscient xam ne réew mi seen réew la te bu benn politicien utiliser leen ñu ñëw di def naka sudul noonu état bi aussi dañuy woo vraiment force de sécurité ak défence yi ñu gën a encadrer vraiment euh, campagne bi pour que benn problème bañ a bañ am et que population bi ñëpp nekk ci ci jàmm ba le 24 février ku nekk génn voter pour son choix et que à partir de là dès le cinq ku nekk euh, en tout cas dellu ci li nga xamante ne moom mooy ay occupation donc man loolu rek laa amoon li li ma ciy wax di leen remercier ci seen question